Sall moo déggalul sëriñ bi waaye sëriñ bi mu ngi wax ak moom yéen a ngi tooñ Macky Sall jàmbur la nag mosuma koo faral mais tey dinaa ko faral yéen a koy tooñ de ndax sëriñ bi moo waxal boppam que ne Macky Sall wóllëreem la ba tey ba ëllëg ndax yeefal na ko loo xamante ni nii wóllëreem rek lay musa doon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa cant yoo xam ne sëriñ ci biir xolam la ko diggee ngir ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nga ko sa diggal moom ak def nga ko sa la ci jiitu it mooy li ñu lay sant la yàlla mooy jikko ju baax ji la yàlla defal ndax nee na jikko ju baax mooy nangu dugg ñoom tamit gis na loolu bokk na ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne def nga ko ngir indi jàmm ci Sénégal ak indi jàmm ci réew mi mooy lii nga xam ne suñ borom defal na ko te li gën a jafe ci àdduna rek mooy dugg ci nguur ci jàmm génn ci jàmm ak ndam loolu lii nga def nag na nga xam ne yëkkati bu rëy dara jóge ci àdduna si yëkkati bu rëy dara jóge si liggéey Sénégal noonu nag moom yàlla boole ma moom boole de xam ne noonu la ko daa waxe rek kon loolu gi mu fasante ñoom bu tey rek du nguur itam ñu ne li fii ñëw ci kaw suuf rek kon loolu gi saa su xëyee dañoo ko du wàññi ko nee na loolu nag lépp lu yaa ko jëmbat ci sa digg moom ndax fonk koo ko fonk jàpp koo ko def koo ko def kii bi néew na weer dugg ba jeex te yéen ci yow te lépp njaboot bi la te yitte yoo ci déggee dañ ci def ba def ci lu moom loolu nag démb rek ci wujju loo xam ne neexut a wax ci mbooloo waaye waxtu ne yaa ngi seetu bëggam di ko dàgg loo jàpp ne njëkk téeméer rek nga def ko nee na loolu nag ñun da koy seere di sant kon nag koo xam ne ñoo nga ci sint Tuubaa yaakaar ko adduna ak alaaxira na sam daal tax te nga xam ne sa giir dund la yàlla na la teral kon nag sëriñ bi ma toog ci sa kanam mooy dàqali sa ginnaaw kon nag loolu la koy wax bu waxee yëg-yëg la kon na sam xel daal di la sant itam nag ci li nga def ci dëkku sint Tuubaa bi te lépp ma ciy seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam la muy lu wér ndax am nga fi fukki at ñaar ci ren war jëf nga fi jëf ju bari yoo xam ne ku ko limoon tey dana ci bari sax lu ma fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ak ñaar yi def nga ci lu mat ñeent fukki juróom loolu jigéen fu rëy la kon loolu day mel ne bu demaatee at rek assainissement gàllankoor yi ci dëkk bi dana jeex loolu itam def nga ci taxawaay def ci yitte def ci jom ndax assainissement day liggéey boo xam loo ci def loosu ko dañu fàtte ko waaye loolu lépp sëriñ bi gis na ko bu dee ci wàllu ndox mi liñ ci def ci ay forage ci biir dëkk Touba mën na fukki forage ci biir ñett loolu liggéey bu rëy la bokkute ne tali yi nga xam ne def nga ko fi muy bari bi ci mooy bi corniche bi ñu tuddee trente mètres bi ëpp na fukki milliard bokk na ci yëpp projet yu mag yi nga xam ne def nga ko fi ba ci jiitu mooy Ila Touba bi nga xam ne mën na ñeent téeméer milliard di liggéey bu rëy bokk ci sa projet yi gën ma ci Sénégal ba ca dolli ko waat mooy hôpital Cheikhul Khadim bi nga xam ne daaw jig lañ ko immigré moom itam nga def ci xaalis bu bëri ak la ñu def ca mën la waxoo sëriñ ba ca mujj nag te gën a ñor sëriñ bi duug ci guddi waxaat na ma naa la ko fàttali mooy liggéeyu université bi ndax université bi sëriñ bi ba mu accès dafa wax na sama yitte jëpp maa ko ci jëmale ngir jàngal ndaw ñi xamal leen ak toqi leen ba mu ko yëkkatee rek yéen a jëm ci njëkkoonam man mi nga yónni woon ci moom ba bu ma soriwul moo bàyyi ma tabaxal ko lépp ndax xam naa fi mu toll ci moom te état mën na ko war ci ñetti at wala ñeent ba ma ko waxee sëñ bi sëñ bi man ko gisee nee na bu ma soñoon taalib nga bàyyi ñu jëf ci waaye fa saasa nee na lépp lu jëm ci tëli assainissement éclairage public lépp yaa koy def ba loola ñoo ngi ci liggéeyam sori na yamaatoo ci rek jëf jën ko ci mujj jëfal mooy bi université bi àgg na yëkkati lu ma juróom benn téeméeri million dugal ko ci biir université bi ngir dund ko ba mu yëg ba nga ko yëgee yëg di bi nee na ko loolu kenn warul ko teg fas naa yéen man ci sama war goru ngóor danaa fexe ba def ci biir si situation yi nga xam ne mu ngi koy defee université bi ñu boole ko ci loolu nag ñu jëf joxoon danga ko jaay gàtt moom ba nga ko ko defalee lam la wax mooy loolu suñ tubaab ma sa defal rek lii dana la ci beraatal sa gàncax yi bopp kon nag na xel daal dugal ci lu ay milliards ci université bi ngir euh, dund gone yi ak di leen jox mooy situation boobu def na ko ci loolu GR kontaane jox cër mbokk aduna GR kontaane jox cër mbokk internet c'est le bon TV kon naa mbokkum réew mi ci chaîne chaîne la chaîne du peuple la chaîne de la vérité ñu wax bàkk bi rek balaa ñoo sori am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex waaye soo bëggee dégg-dëgg jàppal C'est le bon TV doolee jën ndox la doolee saxaaraay la mais doolee site internet chaîne YouTube abonnement aimé commentaire et partagé xam naa ni yéen a ngi ci mais gën leen ci nekk ndax dee leen aimé vidéo yi dee leen may doole chaîne bi ndax loolu mooy tax mbir yi jëm kanam loolu mooy tax tamit loolu mooy sécuriser chaîne bi donc nag gars yi comme ni ngeen ko seetaanee ci commencement bi la chaîne de la vérité ku am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex sama copain Ounia Ndiaye maa koy nuyu ndeysaan mu ne ma ko naa ah ñaari junni nu mu neexee ah man ko su ma la neexee nga may ma ko rek waaye bul ma ko may ba pare tee maa wax dëgg moo tax ma naan ko am ñaari junni yoo maya mayal ku la neex waaye soo bëggee dégg dëgg jàppal Sen Bon ba ñu ñaari junni waaye ñaari junni yu am ci dëgg ah yoo xam ne it ñu tax a noppi du duñu muumaloo ndax dégg naa ku ñu logal nga logg loggal <laughs> kuy lekk du wax donc euh, loolu rek la ñuy bañal suñu bopp mais ay jàmbaaru liggéeykat lañu waaw xam nañ njëriñu ñaari junni donc des fois gars yi dama ci interpellé ko naa lu tax ñaari junni ah bëgg naa ñaari junni ñaari junni yu lew laa bëgg <laughs> yu may am ci dignité ak ci ngor donc gars yi ñu dégg suñu kàddu euh, grand frère sëñ Bass Abdou Khadre waaye nag damay gis nit ñi jangat bi ñuy am motax des fois damay bëgg duma wax damay baña bëgg wax mais damay wax parce que ni may bëggee ñu jangaté ko mbir yi duñ ko jangaté mbir parce que euh, Serigne Bass Abdoul Khader euh, waxul opinion dafa kàddu dafa gaddu kaddu ko xalif général des Mourides moom moy porte parole xalif général des Mourides te xalif général des Mourides mo yor kaddu yoonu Mouride kon Serigne Bass Abdoul Khader gis na nit ñi diko attaquer mais dañ koy tooñ kaddu yi mu yëkëti gis naa ay nit di ko ci attaqué mais ñu ngi koy tooñ moom lantinoor la rek déggoo ci commencement wax ji mu ngi naan ci ndigalu xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ci lay waxee kon moom gërëmul Macky Sall Serigne mooy gërëm Macky Sall moom santul Macky Sall yoonu murit ñooy sant Macky Sall mais nag moom moo yor kàddu gi parce que wax ji noonu la quoi xëy na nag sëñ Bas moom mooy ñaaw yaay peut-être moom lañ gaa yi gën a ñeme wax dëgg yàlla cette fois-ci sëñ Bas Abdou Khadre dañ koo yónni te ki ko yónnee ngi toog des fois sax mu am lu mu fàttee wax sëriñ bi bërëxal ko ko sëriñ bi yeggee ko ko kon léegi nag ñuy ñëw ci suñu gis-gis ci kàddu yi euh, sëriñ Bass Abdou Khadre yi nga xam ne moo tukkee ci sëriñ Mountakha Mbacké yu jëm ci Macky Sall ñu ñu wax ci suñu gis-gis ñu am ñu am ci droit nag am droit sant Macky Sall am droit gërëm Macky Sall am droit wax seen opinion waaye ñu nit noonu lañu amee droit wax ci suñu xalaat comme wax ji egsi na ci penc comme ni ko defee rek ca saa su wax ji li ma ci dégg mooy sant moo ko njëkkee waaye dëgg la nag képp ku ñu defal teraanga war ngaa sant mais kan moo la defal teraanga loolu dafa jar bàyyi xel ci nan la la defalee teraanga ak ci doole ñan la la defalee teranga loolu aussi Mbàkke Balla Aysa dafa jar a xam kan moo la defal teranga c'est pas Macky Sall doomu ab kumba ci mbolo xooma ak kan ak kan chéri Marème Faye Sall déedéet ki defal euh, euh yoonu mourid wala mu defal ko teranga général des mourides moy le président de la république du Sénégal te le président de la république dooley askan wi moom la yor yorul dooleem askan wi ñoo boole seen doole seen dërëm seen ñaar seen euh, impôt seen taxe seen TVA seen lépp askan wi gën a tuuti ki gën a ndóol ba ki ëpp alal ñoo dajale sunuy budget sunu alal jébbal ko le président de la république ngir mu ñoŋalal ñu ko est kooku. alal ji muy joxe moom lañ ci war a gërëm ndax sax war na koo joxe nii mu koy joxee bañ di ko ci gërëm loolu it point d'interrogation est-ce que war na koo joxe nii mu koy ñu koy mu koy joxe bañ di ko ci sant di ko ci njàmbaaral te du dooleem ndax Senghor mu ngi fi woon daan na def bu mu demee defatut la mu daan def ci yo ci kilifa yi Abdou Diouf mu ngi fi woon daan na def bi mu demee defatut la mu daan def ab Abdoulaye Wade moo ci mujj moo daan jëfkat bu mag bàngoogu ci yoonu murit daan na def lu nu waxal Macky Sall ci lu baax waxal nañ ko lay Wade ab lay Wade moom yoonu murit da cee def ba defa def yem ci doole askan wi waaye kenn dootu ko gërëm ndax moom wàllam wéy na léegi ki fi ne di def ci doole askan wi moom la war a gërëm wala askan wi lañu war a delloo njukkal baalu leen àq ci seen alal ji ñu jël amaana est-ce que sax alal jooju foofu moo nekkoon jubluwaay wa

alalu alalu nguur suy génn dafa am um, traçabilité te waru ci tamit jël alalu nguur di ci neexal ñi ñu bëgg mooy tax ñu leen di bu ëllëgee buñ waree jàkkaarloog yow wax la dëgg duñ la ko wax moo tax boroom xam-xam yu mag ya ak kilifa yu mag yi daan maytu privilège nguur ak alalu nguur parce que nguur dina jël privilège def la ko nga foog ni daf laa bëgg fekk daf laa bëgg daf bëgg nga ko ci gërëm léegi ngërmande gi kan moo ko yelloo muy askanu sénégal askan wi lot askan wi xiif askan wi joy askan wi ay doomam amatuñu yaakaar ci seen réew bay mbëkk gaal gi di jaar fu di dee askan wi ñu tëj ci kaso bi ndax seen xalaat bi ñu wax ci nguur gu bon guy am askan woowu lañu jël seen alal jébbal leen ko mbàkke bàll aysa du alalu Macky Sall te wallahi Liko ko fi dese bu jéxé ngeen xol ndax magalu déwén mom ngeen gërëm wala keneen kon nak mbàkke bàlla am ngeen droit gërëm ku len neex sant ku len neex waaye nak bàyyi len xel ni alalu askan wi lay len jox bàyyi len xel ni eh, manam li askan wi nat jébbal ko pour ñëpp yam ci mom lañ yëkëti neexalé len ko il faut que mu lèr kon bu ngeen ni sant deug la war ngeen sant waye kan ngeen wara sante muy askanu Sénégal ndax Macky Sall amul dara waye dama gis ci wax ji yëpp Macky Sall la nuy sante ñoo ngi lay sante ndax milliard bi nga yëkëti joxe ko ñoo ngi lay sante ndax li nga def fi ñoo ngi lay sante ngir li nga def fa ñoo ngi lay sante ñoo ngi lay sante te wallahi joxu len alalu bopam est-ce sax war na len jox alal nan la len ko wara joxé ak naka la wara démé lolu loolu yëpp lu jar bàyyi xel la. kon nak eh, son excellence monsieur le président li nek ci sa kanam moy dak lolou lanu la ñaanal sa ginaaw pandang Macky Sall ñun ñoo lay sant ñun askanu Sénégal au contraire bay Bass Abdou Khadre Macky Sall mo ñu wara sant Macky Sall mo wara dello ñukal njukkal askanu Sénégal Macky Sall mo waron dello ñukal Sénégal fim tollu lim warona def moy di wër di sant sénégalais ak di leen jéggalu ak di leen balu ak ndax dañ ko defal mana lu mu meunalul bopam lu ko juddo mayum lu ko lu ko ay atam mayul lu ko dayo mayul lu ko dara mayul la askanu Senegal jox juddo mayu ko ndax bayam gardien école lo won may fiat lor ci gardien école yi di bu am solo ndax man mi gardien la kon dara mayu ko ñukay woyé son excellence loolu yaakar, ak bëgg ak ak wolute gi sénégalais yi am ci mom kon delloo leen ñukal sénégalais yi ngir yalla ak yonenti bi pour une fois di wax len Macky Sall mu delloo njukkal sénégalais yi mu sante sénégalais yi tax mu mën li mu mën tay ba ngeen diko ko ci gërëm té waru len ko ci gërëm askanu sénégal ngeen ci wara gërëm est ce alal jooj sax warna genn ni mu genné ba ci ci yeen ba ngeen ci gërëm Macky Sall loolu yépp c'est des points d'interrogation dinañ ko xol ci diiné waye dinañ ko xol ci walu loi yi réew mi gis na ni buñ ko xolé ci ñaar yoy yépp dinañ am buñ ci dut ci alal ji ni mi genné ak fi mi dem muy alalu askan wi kon Macky Sall Baye Bass moom moo amee njukkal askan wi yéen nag bu leen neexee ngeen sant ko waaye na ngeen xam ci di doole askan wi ngeen ko sante mënul dara du mën tey du mën suba te bu subaa lay gën a leer li may wax ni gul dara dans six mois màggalu prochain dans un an di ngeen xam ni Macky Sall mënul dara foofu mu toog keneen moo fay toog ngeen di ko santal léegi nag fi may gëna interpeller les sénégalais ñu bayyi seigne Bass Abdou Khadre deful dara seigne Bass Abdou Khadre dañ ko jox ay cadeau mu koy jébbal Macky Sall légui nak sama xel dem ci li waji ji waxoon mooy que bu ñuy kilifa gi le président de la république dañ koy sante publiquement diko kañ publiquement diko ñaanal publiquement diko diko diko sargal publiquement ci doole askan wi encore une fois il faut ñu ni bayyi xel lima bëgg ngeen may bindal commentaire ci doole askan wi waaye bu ñu nee nañu jàkkaarloog njiitu àdduna bii ne ko teggil sa tànk askan wi sonn nañ ñu ne noonoo duñ ko wax ndax kilifa la ci suuf lañ ko koy wax wala ñu ngi wax moom ci suuf moo ñu déggul yéen ñu doon wax loolu yépp gàcce kàddu yi sëriñ Muntaxa yi mu jaarale ci sëriñ Bass gàtt gàcceel na seen kàddu yi sëriñ Muntaxa réerewul ak Macky Sall musul réeroo ak moom ay xarit lanu ay wëllëre lanu moo ko wax ñépp dégg kon yéen ñi naan Macky Sall moo déggalul sëriñ bi waaye sëriñ bi mu ngi wax ak moom yéen a ngi tooñ Macky Sall jàmbur la nag musuma koo faral mais tey dinaa ko faral yéen a ngi koy tooñ de ndax sëriñ bi moo waxal boppam que ne Macky Sall wóllëreem la ba tey ba ëllëg ndax yeefal na ko loo xamante ni nii wóllëreem rek lay musa doon kóllëre nag dafa am lu muy tekki nit ki boo wóllëreenteeg moom danga koy defal mu di la defal nga di ko sañ nga sañ ci moom mu sañ ci yow sañ nga kaa gërëm waaye sañ nga kaa wax ni askan wi kat lottu nañ askan wi sonn nañ wala boog ñaan naa la ah, askan kii pàcc wii ci askan wi ñaanal naa leen njekk lépp loo naroon ci bàyyi ko waaye diw kat ñaanal naa ko njekk lépp loo naroon ci moom bàyyi ko parce que da ngeen na ay wóllëre génn ndax koo sañ ci moom war naa mën a sañ ci yow kon bàyyi leen yéen ñii di tooñ Macky Sall naan déggalul kilifa diine yi le contraire moo am mooy que kilifa diine yi sant nañ ko gërëm ko xamal ko ni yaa gën ci ñun yaa gën ci ñun li nga ñu defal kenn defaluñu ko te dañ laa amel njukkal te encore une fois wóllëre lañ sékk ak yow kon nag gaay ñaar rek moo mën a am soit que ñaari Sénégal moo am wala boog li naqari askan wi naqariwul kilifa yi lii yitte askan wi du yittey kilifa yi lii bëgg-bëgg askan wi duy bëgg-bëgg kilifa yi ñaari rek moo mën a am soit que muy ñaari Sénégal wala boog muy yii ma leen wax léegi nag c'est à vous de juger sur les commentaires xel nag yàlla daf ko defal ñépp yàlla nee na ba mu yàgg wax na ni yaa ayyuhal lazina amanu ba mu yàgg mu ne yaa ayyuhal naas mooy wone képp ku mu bind yaa ayyuhal lazina amanu woonaa képp ku ma gëm waaye yaa óolul albaab bi mu ko waxee dafa ne xel yi boroom xel yi laa woo man nag boroom xel yi lay waxal yene ngi tooñ Macky Sall yene ngi tooñ sëñ Bass Abdoul Khadr ci Macky Sall déggalul kilifa yi ndax ñu ngi koy wax daa bañ yene ngi koy tooñ ndax kilifa gi nee na Macky Sall ñoom ñaar wóllëre lañu musul am lu ko naqari ci moom gërëm na ko sant na ko kanamam ginnaawam ba ne ko sax li nekk sa kanam mooy dàq ba pare ne ko Sénégal mu ngi ci jàmm yor nga ko ci jàmm yaa ngi koy jébbal ci jàmm mais Moussa Fall lii la wax. yakarna ni. moom ñu ko mën a yàq ñun bu ñu fi toog tey yàlla ko aaral boppam eh, ñun nag dañ ci teg suñu loxo ni rek di ko yi waaye moom ay mbiram aaral na ko boppam ba pare ñu am ci yaakaar loolu itam nañ mbàkke ci yow ci bëri ci ñaan ngay ñaan réew mi ci ña jàmm ji ngay sàkku ci réew mi loolu umpul kenn te ñun kuy sàkku jàmm rek ñun ngay dimbali parce que ñun bu jàmm amee ñu mën a am suñu bakkan bu jàmm amul <laughs> suñu bakkan day xaw a jafe kon gis na réew mi li fi yi yëpp eh, ñàkk jàmm doo nga ko indi bu jàmm amee gendarme yi am jàmm bu jàmm amul am jàmm ñu ngi sàkku nga ñu cee ñaanal la ñaanal euh, yàlla. dégg ngeen li Moussa Fall wax moom nee na Sénégal ku xam na ni nekkul ci jàmm moo waral màggal gi liñ ciy jël ci te gis dégg nag ki yor kaaraange réew mi nee ki yor kaaraange gi muy général Moussa Fall nee jàmm amul. moo waral seen disposition yeeg ak li ñuy waajal ci màggal gi ñoom nee nañ non république bi dafa la république est ko ay dañuy am lu ñuy waajal ak genre yooyu noonu. si màggal geeg genre yooyu noonu quoi comme léegi ay terroristes ak genre yooyu ñoom lan lañ nekk di message boobu maanaam liñ naan euh, langage boobu la ñuy kii élément de langage boobu la ñuy kii mais sëñ Bass moom nee na ci kàddu Serigne Mountakha Mbacké Macky Sall yor na réew mi ci jàmm. mu ngi koy jébbale ci jàmm te loolu ndam la waaye Moussa Fall mi yor kaaraange bokk ci ñor kaaraange gi nee na loolu jàmm jooju des amul ci réew mi ngi noonu. kon nag gars yi man euh, jàngat bi may def rek mooy prenez encore vos responsabilités xam ni c'est nous seuls le peuple sénégalais ñu mën a libérer le Sénégal ci loxo yi mu nekk ak injustice yi nga xam ni ñu ngi koy dund waaye wallaahi lii ma gis nii. c'est juste des folklore lii ma gis nii c'est juste des des fix des fiction noonu laa ko mën a waxee waaye du réalité kon nag gars yi nit du nax boppam nanu gën a takku Ousmane Sonko ba ñoo gën a gore nañu gën a góorgóorlu xam ne gars yi réeroo wuñu mbay peex ma toogoon ca tànt ba naan waroo leen fi tudd turu Ousmane Sonko tey moo yoraat micro bi di ko jébbale di ko joxe li ma jaaxal ñuy dàkka wor wala ñi nga xam ne kuñ mës a àndal wor nañu la ci caaxaan la ñu nekk ci lépp ñoom ñoo demaat jaxasoowaat ak nit ñi ñuy woowee nit ñu baax ñi te lépp war naa mën a ne ndax Sénégal la nekk kon nag gars yi lii mooy suma xalaat ci on est seul contre tous te on est seul contre tous boobu saa su ne rek dafay gën a fës waaye askanu Sénégal ma ni leen tey c'est nous seuls ñoo war a tekki suñu bopp ñun rek ñoo mën a libérer suñu bopp libérer les jeunes yi nga xam ci kasso bi ak Ousmane Sonko waaye bu dul loolu leneen lu ngeen ko xalaat ça sera pire kon nag gars yi lii moo nekkoon sumay kàddu ci jàngat bi may def ci kàddu yi nga xam ne jib na Macky Sall nag ñaanal nañu ko moo gën ci Sénégal moo baax ci Sénégal moo defar lépp lu baax ñun askan wi ñoo bon askan wi ñoo yées ñun liñ koy waxal yépp dara du ci dëgg kon nag lii la mbir mi demee ngeen nangu ko wala ngeen bañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf